hamdi wa sali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaar teeg ëllëg Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér mbokk yi su ngeen gisee image yooyu xel dana dem ci réew moo xam ne sëriñ bi. yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo ko ko tànnal mu tuddee woon ko ardu saalihin muy suufu nit ñu baax ñi di Mauritanie mu nekkoon fa ci barab bu tedd di Sarsara barab boobu nag at mu jot ñi di ko ziyaare ji ci ndigalal ki fi nekkal Serigne Touba te ki jiite liggéey bi fii ci senegal di soxna maam Issa Mbacké bintu Serigne Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba ñëpp xam taxawaayam ñu déparé fii ci kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan délégation bu yaatoo yaatu boo xam ne bokki taalibi bàyyeekoo nañ fu nekk ñu daje fii ci kër sëriñ Touba gi am bokki taalibi yoo xam ne dañoo déparé ñoom itam kër Serigne Touba ga ca ñu joxante dig daje nag ci dëkk bu tedd mbokki taalibe egsi nañ nag Louga euh, Louga nag ni ñu ko xamee bi ñu fi egsee dafa am ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo bokk ci fédération ahlu kafe Touba ñenn ñi di soppey soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe at mu nekk ñoom itam dañuy teeru délégation bi ba bare boole ko seen alal ak seeni bernde yu mucc ayib ñu mën a ràññee ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy taxawee liggéey boobu muy fédération ahlu kafe dañu am ay daayira yoo xam ne dañu nekk eh, Louga soxna Umu Jaw jiite ko ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko àndal soxna Ayda Sambu ak soxna Njawa Sëy ak tam ki nga xam ne mooy soxna Isa ak boroom këram di Baay Faal ñoom itam ñuy ñu am pasteef am pasteef macha allahu taala. wax yàlla def at mooma ma dem man nu yeggee yëf neex lool wax dëgg yàlla ba mu ko defee ma ne ko soxna si ndékki yi ngay fare fii teggil naa la ko gis na ka tey lu ma ca man boobu ba nëgëni lu ma ci man maa ngi ci def lu ma fi def nag xeeb naa ko ndax man sëñ tuubaa jaral na ma lu ne lu ma yëngutu sëñ Touba rek tax ma yëngu maa ngi ñaan nag yal na nu yàlla dimbali lafal nu cat akum ndox lii ñaanal maam Issa Mbacke mais yal na fi yàgg ndax kat man boole na ci lépp boole na ma ci lépp maa ngi ñaan nag di ñaanal sama njaboot bii may dimbali di ñaanal it ñi nga xam ne ñooy dem Sarsara yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla may nu xéewal te sëñ fa ci rajo ñuul mag nañ fay wuti daal yàlla nañ ko fa ما في القديم له أسياب والقديم ñu ndekkee ba pare nag euh, la ñu duggaat ci oto yi convoi bi daldi jël yoonam euh, wuti nag euh, dëkk bi nga xam ne mooy ndar ndar tam kenn ku nekk xam na ne bi sëriñ bi di dem gànnaar jaaroon na fa jaar gi ñu jaar ndar nag ñu ngi escale ci fi ñuy wax place Ablaye Wade foofu tam ba ñu fa escale am na ay bokki taalibe yu fa nekk yoo xam ne ñoom itam sang bu baax moo leen jiite bu ñuy wax sëriñ Abdoulaye Khadim Sarr Euh, ñoom itam ñoo ñuy jàppale ci recommandation bi nga xam ne mooy kayit wi yombal yoon wi te mu war a tukkee ci gouverneur bi nga xam ne moo nekkal nguuru Sénégal foofii ci Ndar macha allah moom itam at mu jot mu jàppandal kayit woowu suñu mbokkum taalibe mu ñuy wax Aboubacrine Gueye moo ñu koy toppatool daje ak ñun foofu ci place Ablaye Wade bokki taalibe yi wàcc foofu rek ay fukki minutes. Eh, jël recommandation bi santanteeg bokki taalibe yi ñu wéyal yoon wi kon état boobu mooy ndar am na solo moom itam ci yoon wi jógee ndar nag lañu ñu dëgmal Rosso Sénégal Rosso Sénégal tam xam ngeen ne barab bu am solo la ndax mooy digg wi nga xam ne moo xàjjale diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie muy Rosso Sénégal soo jéggee nag ndox mi dem fi ñuy wax euh, Rosso Mauritanie Rosso Sénégal tam am na bokki taalibe yoo xam ne dañ ñu fay teeru ndax niñ ko xamee soxna maam Issa liggéeyam dafa yaatu ci biir réew mi ak bitim réew fu nekk am na ay bokki taalibe yoo xam ne ñoo ko fa nekkal suñu mbokkum taalibe mu ñuy wax euh, Serigne Seni Diang nga xam ne mooy représentant xalif général des Mourides foofu ci Rosso moom itam dina dalal gan ñi Eh, ànd ak ñun tam ci li nga xamante ni bi mooy eh, formalité yi ñu war a def foofu eh, soog a jéggi nag dem Rosso Mauritanie kon gis ngeen bokki taalibe yi foofu ci Rosso Sénégal ñuy waaj nag ngir dugg nag ci bag bi war a dem nag fële ca Rosso Mauritanie muy état bu njëkk bi nga xam ne ci biir réew mi la ñu soog a tàbbi nag Mauritanie bismillah ni la mana Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Murtada nag la ñu jawale fi nga xam ne fan la ñuy dal muy Lixaar fekk fa tam daayira bu am pasteef muy daayira wala xadd karab na euh, sarsara ahlu café muy daayira boo xam ne macha allahu taala ay soppee soxna si lañ waaye ay wëllëreem lañ at mu nekk ñoo koy dalal euh, wutal ko barab bu yanj boo xam ne délégation bi lu mu yaatu yaatu ñëpp danañ fa mën a nekk mbooleem bernde itam lépp di leen fa fekk Serigne Babacar ak mbooleem soxna ak góor yàlla yi mu ànd liggéey bi ñoom itam duñu noppalu diiru juróom benni fan yi ngir rek di toppatoo délégation bi ñoom itam ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñaan ñu dajeek wax di awaa ijël lazina daamu fi xidmati wa ablahum maaraamu bu rëy la ci ñun ñi nga xam ne eh, ñoo fi nekk fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ndax dafa mel ne délégation la dajale na yoon wépp moom bu ñu jógee jëm si Sarsara te nga xam ne euh, dañoo jëm ci ci ci seen barab waaw ndax mm, Sarsara moom ni mu ci yoon wi euh, defe naa ne ku yaakaar suñu tubaab ku ne xam nga ko mm, kon nag ñu ñaan suñu borom nangu nangu ziar bu baax te yombalal ñu lépp te def yombal goo xam ne day law at mu nekk mu yokk barki suñu tubaab. bëgg ñoo doon dara bëgg ñoo jiite bëgg ñoo doon dara topp ci sa ginnaaw rek. boo ne def leen lii ñu def ko boo ne bàyyi leen lii ñu ko loolu moom wax naa ko daaw wax ko ren mooy sama baatu dem mooy sama baatu bëkk dem xëccoowuma njiit man fu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa maa nga fa le monde dans la loolu rek laa bëggoon na biral mbokki taalibe yi dégg sa ndigal dong laay déglu te sarsaara na maa ngi tay ba ëllëg duma bàyyi duma dellu ci ginnaaw liñ bëgg dañoo bëgg dem ba ay château tax tax nekk fa ay avion di fa wàcc lépp di fa te loolu mi ngi nii ci suñ kanam nekku ci suñ ginnaaw nag bokki taalibe yi lañu dem nag ci kër sëriñ Sabara Fall muy taalibeeb sëriñ Moustapha Massamba di jàmbaari Seex Massamba moom itam at mu jot day def sant Seex Massamba bu ñu nee suba la ñuy dem Sarsara di bisu àllarba bi waaye bis boobu lépp daf ko jagleel soxna maam Isa Mbàkke bint sëñ Modou Fati Xari ibnu Seex Massamba mi fi teewal njabootu Seex Massamba moo tax délégation bi dem nañu kër sëñ Sabara fa la ñu yendu def nañu fa ay bernde njàngum xasida waxtaan ci Cheikh Mazamba fa la ñu nekk ba ginnaaw timis euh, la fa xew lépp macha allahu taala mu ngi noonu ngeen di jàkkaarlool muy lu am solo itam ci état bu liggéey bi. ministère de l'intérieur de, la Mauritanie et aussi au ministère de l'intérieur du Sénégal. de nous aider à faire les formalités, à nous faciliter les formalités de la traversée de Dakar euh, à la Mauritanie. Nous interpellons notre président, M. Macky Sall, de nous aider parce qu'à chaque année, nous faisons le pèlerinage au niveau de Sarsara. Aujourd'hui, nous sommes euh, à la 13 année euh, du pèlerinage. Vous savez que c'est Cheikh Ahmed Bamba qui a de 1902 à 1917. À partir de cette déportation-là, tous les mourides se souviennent de cette journée. Ils Donc nous demandons aux de nous aider les formalités de la traversée de Dakar en Mauritanie. Euh, qui est l'auteur Sokhna Mame Issa Mbacké n'a ménagé aucun effort à faire traverser les mourides du Sénégal en Mauritanie. Chaque année, elle dépense des millions pour venir ici, pour faire venir ces ces de mouride ici à, en, en terre البنين وبشر العدل يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ إبراهيم خير الله يا ربنا بشيخ عبد الأحد والصالح لم يحضره من أحد يا ربنا بشيخ عبد الصمد والمرتدى باي سري سري باكي ماشي barab bu tedd ba di Sarsara Sarsara nag ak Nouakchott seen diggante toll na ci téeméeri kilomètre ak juróom fukk téeméeri kilomètres yi tëli la waaye juróom fukki kilomètres yi moom mooy jafe-jafe bi ndax oto yi nga xam ne moom la ñuy war ba ñëw ba Nouakchott oto yooyu dañu koy bàyyi Nouakchott jëlaat yeneen 4 x yoo xam ne ñoo ñuy war a yóbbu foofe ca euh, Sarsara muy barab boo xam ne dem fa metti na lool waaye dañuy sant yàlla ndax li muy métti métti ci ay oto la ñuy war te mag ñi fa doon fekk sëriñ bi dañu doon dox sant it état mauritanien état bu Mauritanie ñu ngi koy sant ci kilifteefu Mohamed Ould Abdel Aziz ñoo ngi sant l'état du Sénégal ci jiital Macky Sall ñu ngi sant it ku ñuy wax Ousmane Samb muy jàmbaar ci liggéey bi moom it ba ñuy tàmbali moo nu jëkk jox ñaar fukki junni dama ko fàtte mukk ñu ngi sant daa daa taalibe yëpp di sant murid yëpp di sant bay sant ñi nga xam ne nekku ci biir Nouakchott nekk ci région yi waa di bi gis nañu fi waa Atar waa waa Xayra jàmbaar yooyu région yëpp teew nañu ñu ngi leen di ñaan bu ñu demee ñu waaj waajal pour déwén ñëpp nañu waaj ngir liggéeyu Sëriñ Tuubaa bëri gu mun teg ci mbartal la boo tegee mu dem boo tegul mu dem bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi fi daj yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di jiital ci suñu kàddu ñaanal sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na ko suñu may ko wér ak sëriñ Touba gépp di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér di ziyaare bu baax a baax kilifa yi fi nekk yépp di ci jiital ki yàlla jiital te nangul ko ko tey ñaan mu yàgg muy sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Mourtada ibnu Cheikhul Khadim di nuyu bu baax sëriñ Ahmadou Fall mi nga xam ne moo fi teewal magam sëriñ Cheikh Ndigal te fii ci déwén la démb fii ci Sarsara waaye xam nañ ne yoonu Baye Fall dafa perte kilifa gu mag muy Serigne Modou Abdoulahi Fall Ndar loolu moo tax sëriñ bi dellu ndax tey lañ koy ñaanal ñu ngi koy ziyaare doomam ji fi teew di soxna ma Fall ku dëgër la ndax loolu moo ko fi bàyyi ba léegi. ndax de mi wooyu Serigne Cheikh ndigal dana ma soxna Rama na àggale yoonam te xam ne baayam moom ma nga aljanna mooy saf saara Serigne Touba dane bi muy ñëw fii ci Sarsara ña ko fi doon indi dañ koo bëggoon a gàcceel te moom yàlla musul na ko ci gàcce ndax dañ ne ca Gabon da doon jaamu yàlla moo tax mu dimine tubaab yi nañ ko yóbbu Mauritanie ngir ñu dimine ko ñu indi ko Mauritanie naari gànnaar yi ñëw jébbulu ñu ngi nii sama ginnaaw seeni maam ñu bari jébbulu ñu jox seen bopp Serigne Touba kon dafa mel ni la taxoon ñu indi Serigne Touba échec nañ ca Serigne bi nag barab bii gënal ko fépp ndax nee na li ma fi sama borom may ku sëñ tubaa ñor déglul nee na li ma fi sama borom may suñ gasoon ay teen yu gudd di jël may yi di ci sotti sëñ tubaa nee ne teen yi dana fees te may yi ma sama borom may du jeex sama borom su doon koy jeexal jox na ma ci sarsaara di ma jox ba ma jàpp ne lam yoroon jeex na ajran kabiran wa zawaban wa jaza wal waxdu lii fii ramadani na jaza kon nag loolu nañ ko xam ñu xam ne mbir mi liggéeyal sëriñ tubaa la soxna si nag nay leer sëñ bi dafa war a leer de mboolum taalimeef ne sëñ bi sëñ siidi sokhna si yow la jiital topp ci sa ginnaaw ndax moom dafa wax ne ku ko mag ci sëriñ ku mag ci sëñ tubaa te ngay góor jox na la cër boobu sëñ tubaa ka a ko ñor jiite sarsaara ñoru ko su jógee sarsaara feneen la jëm le 22 ma nga jëm Amérique ca Bamba day ba awar ànd ak sëñ Mamour mu Seex Muhammadul Murtada barki démb la jógee France ñu invité ko def na àddina bi yëpp wutut mbooloo aw tur sëñ tubaa may na ko ko ba pare xëccoowut dara min ci ginnaaw sëriñ Siidi lu mu ko sant dina ko def lu mu ko tere dana ko baax keneen nag mënu koo jox benn recommandation ku dul ki fi nekkal Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa waaw te xam ne lépp ñoo ko bokk. te xam ne lépp ñoo ko bokk. waaw te it ndam li. te it ndam ñoo ko war a bokk it. ñoo ko war a bokk te ku nekk. te du te ku nekk. ñu beral la sa ndab loo xam ne. ñu beral la sa ndab loo xam ne. mboolem ñu ngi njaboote danañ ci xaj. ñu ngi njaboote danañ ci bokk. jërëjëf waaw jërëjëf ñu ngi leen di jégalu bu baax di leen إن الذين إلى الصرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا ñaar boobu mu ngi dem ba alaxira incha allah ku fi ñëw bakaaram dina wàcc dama incha allah ku fi ñëw bakaaram dina wàcc maa ngi leen di nuyu yéen yëpp ku nekk ci turam ak suntam Mbàkke waa mooy maam hmm? uh-huh. maam Isa Mbàkke maam Isa Mbàkke kooku man dégg naa turam bi ci nu ak soot yu bëri fu muy mbedd bu mu jaara rek ñu ni ma maam Isa Mbàkke liggéey ngir sëriñ bi rek tax mu defee loolu xam naa loolu dafa def koy defe pour sëriñ bi rek te te gis naa tamit te te te te tamit te tamit dumu dumu Murtada Mbakke bu ñëw fii léegi xam-xamum سمبك لو ما يدفع من جسناته لو دقنا كتنوا عكشوت دم كي دقيتو روسو dégg naa ko ci Mauritanie yëpp ku ma ñëw rek ñu ni ñu ni am ne benen jigéen bu tudd maam Issa Mbakke lu muy liggéey ci sëriñ bi bu gënee ni ñun yëpp ñu liggéey comme comme lu mu maam Issa Mbakke liggéey ci bi te te jigéen yi yëpp jigéen yi yëpp waxatuma li wax man waxatuma li jigéen yi góor yi sax góor yi góor yi sax man war nañ war nañ mel ni comme lu mu maam Issa Mbakke mel xaadimu rasul xaadimu rasuul suñu maam xam nañ ko suñu baay xam nañ ko ñoom xam nañ ko Mauritanie du fi gan fii Sarsara it fii la gisee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ji haaran na haaran ba cëg ndar kang mu feeñu ko mu feeñu ko ci jëmmam jox ko visite bi kon fii mooy berceau mouridisme li ñu fi gis it neex nañu ndax jumaa ji tabax fii Serigne Sidi nee na Serigne Sidi Mbacké nee na dafa bëgg ñu def fi benn daara xale yi di fi jàng loolu tànk yooyu ku ko dox ku di jullit rek war nga ko dox ak moom kon ñun seen ñëw bi fii euh, mënuñu lu dul tertu leen lu dul dalal leen fii ndax suñu waru gar la waaye jamono bi ku def waru garam daa mel ne dafoo dara ndax dëkkaale ngeen bokki jullit ngeen gan ngeen ñetti àq yi yëpp mënuñu fexe ba matal ko waaye age joxe nañu ndigal ne lépp lu ñu am nañ ko génnee bis bi ndax bi bisam la bis bi muy tertoo ganu yàlla duyuufu rahman fii ci Sarsara nee na lépp lu ñu man rek Matamulana nañ ko def te lépp li ñu man ci Matamulana def nañ ko incha allah waaw di ginnaaw loolu xanaa ñuy nuyu mbokki taalib yi nga xamante ni maanaam ñooy waa daayira wala xarit karam naa sar saara bi yëpp mu mel ni comme suñ taxawaay ni nga ko gisee nii rek durant li ñu fekk ba ba daanaka biñ commencé ba léegi ñoo ànd liggéey bi ñun ak yéen daanaka dara ump leen ci du lenn lu dul maanaam ginnaaw boo xamante ne bi ne maanaam waajal nañ li nga xamante ni maanaam moom la nar def sa saar première bi mooy waaj pour maanaam bu soxna si ñëwee ñu mën koo teeru fële ca Nouakchott def fa lépp loo xamante ne bi ne ay bernde la maanaam fas yéene ko ànd ak mbokk taalibe yi ginnaaw tamit àndaat ak moom ñëwaat fii nga xamante ni maanaam mooy Sarsara waaw daal di àndaat ak ñoom liggéey moom gaa yaa ngi gis leen ñu ci axlu bi na ci café geeg waañ weeg yëpp mel ni kon loolu mooy li nga xamante ni maanaam mooy suñu taxawaay fii ci waaw ziar bi ni ma ko gisee e, bii mooy treizième édition bi ñu ko dalee def ak léegi e, mu mel ne at mu nekk nit ñi dañuy gën a yokk ndax daaw xayma woon nañu trois cent cinquante personnes tey xayma nañu six cent cinquante personnes et trois cent cinquante personnes yooyu mi ngi composé ci délégation yu takku yoo xam ne at mu nekk dañuy jóge Sénégal di ñëw bokk na ci délégation maam Soxna Issa Mbacké bokk na ci délégation Soxna Bintu Fall ak Soxna maam Marème Mbacké bokk na ci délégation Serigne Bassirou Amar ak ñeneen ñi nga xam ne aussi chaque année délégation bi day gën a yokk ñu ci sant yàlla bu baax. illa jaamu yàlla di teewaay dundal sunna si yonent sallallahu alayhi sallam ndax fii sëriñ Touba yi Touba bi dañ fay indi woon sëriñ Touba ngir mettital ko ak tumuraankel ko ci mu ne naari yu weex tàll yu bari xam-xam mm. waaye sëriñ bi moom jàppe woon na ko teraangay boromam kon ñun en tant que ay murit mm-hmm. li ñu war ci sëriñ bi mooy mm-hmm. bu sëriñ bi sooboo ci géej mm-hmm. bu ñu mënta soobu ci géej nañ taxaw ci tefes ga su sëriñ Tuubaa nekkee ci ab got nekk fa ay at maate ay weer ñu mën caa barkeeloo nag benn fan wala ñaar ndax ñu am ca jihaatam joojee mu doon liggéeyal boromam kon ñun en tant que ay murit war nanoo takk suñu ndigg mm. wokk suñu loxo mm. di jéem a xeñtu mm. ak a topp ay jeexitam jéego par jéego te bañ a yokkat bañ a tayyi ki nga xam ne moo bàyyikoo ci ay dëkkam muy Touba ak Daaru Salaam bàyyi ak njabootam muy Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Moustapha bàyyi ay taalibeem muy Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh ay rakam muy borom gaawaan ak ma eh, Masamba sëñ samba ak maam Thierno Ibrahima Fati bàyyi léppam dem ci géej ga amul kenn ku koy defal dara mu nekk fa ak tubaab yi ñu am seen ay moyen am ay pexe saay-saay ëpp ko lool ñu dem ba delsi ci sëriñ bi dara dalu ko sëñ bay jaxate wax ne ku jàpp ne bamba sa maasam bàyyi la dëgg jógal ànd ak sa jëmmu dem maa yomba ak làmbar na del si nu gis mbaa nga sàkk ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall mbaa Thierno Ibra Faty nu gis sëñ bay jaxate nag nee na ku munut loolu doo sëñ tubaa Cheikh Ibrahima Diop ne ko maali li baxdaada sawxun laa walal faas yi laakin bi ruya jolof biitu an faas yi moom de nee soxla wut a xam kenn soxla wut a gis kenn soxla wut a bëgg kenn Cheikh Ahmad Bamba képp doy na ko te loolee mu waxtam mag ñëpp ci loola lañ nekkoon kon nag barab bii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg jox ko tiraanga bu rëy bii nga xam ne moom la ko jox muy wérdi wi nga xam ne sëriñ bi kam ku njëkk a jox ñu koy wax Abdullahi ibnu al Alawi sëñ Tuubaa dane ko Abdullahi sama wirdi wii de ku ko wirdi boo bëggee tabbi aljanna da nga tabbi aljanna soo bañee tabbi aljanna da nga tabbi aljanna ndax sama borom moo ko ci digee mbooleem wirdi yi ngeen yorantam su ngeen ko mënee boole ak moom nuur la ci kaw nuur mooy leer ci kaw leer waaye su fekkee ne benn wirdi képp ngeen attanu yor yor ko moom ngeen attanu yor ko na ngeen bàyyi wirdi yi ngeen yoroon te sa yor sama wirdi wii man Serigne Touba mag ñi daan bàyyi koo Sénégal di ko fekk si fii am na ku ñuy wax sëñ Màkka Saar sëñ Màkka Saar ci fii ñu toog lay fekk Serigne Touba dafa jox loxo Serigne Touba su jootal ko ba sëñ Tuubaa bàyyee loxo ba sëñ Màkkasaar sedd guy faatu sëñ Tuubaa ne Màkkasaar jël leen ko ngeen yóbbu ko ci armeli puufa ya ngeen denc ko fa yéen ñi ànd ak moom ci denc bi jéggal nañ leen seen i bàkkaar loolu sëriñ Tuubaa wax ca roog am na ñeneen ñu faatu ñoo xam ne am na ñu wane fii seen i bàmmeel am na ñoo xam dañoo départ egsi wuñ am na ñoo xam dañ leen addu kalpe lu nekk xew na fa Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne moom lañ tudd bis bi tey nag moo binda leetar ca Ndar yónnee ko gouverneur général ne ko na ngeen xam ne Serigne Touba da ngeen koo tooñ yóbbu ko Gabon tooñaat ko yóbbu ko gànnaar tooñ gi nag war naa dakk ngir moom léegi mag la damaa bëgg ngeen bind ab leetar boo xam ne da ngeen ciy wane ne la ngeen jaaranteeg moom yëpp yéen a ko tooñ mosu leen a tooñ ndax moom yàllaa ko ñor te yéen addinaa leen ñor kon daa mel ni dafa jëm penku ngeen jëw sow kon nag bàyyi leen ko mu delluwaat ci ay bokkam delluwaat ci njabootam ñu lii de ay la yéwén mooy lii dëgg ba ñu bindee leetar jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko indi fii sëñ Mouhamad Lamine nee na booba ki nekkaloon nguuru France fii ci Mauritanie mi ngi tuddoon Kappalaan moo sañu bataaxal bi nga xamante ni moo bàyyi Serigne Touba mu ñibbi ak Cheikh Sidé mi nga xam ne moom lañ ko dénkoon Serigne bi nag wax ne foofa kat bu ñu jàpp ne dama fa doon tumuranke waaye la ma fa doon defi mooy damaa bëggoon rek su ma sama jox borom joxee sama pay ñëpp xaj ci li ma yàlla may te sëñ Mouhamadou Lamine Diop moo netti loolu moo ne dafa am benn naaru gànnaar boo xam ne nee na daa gént benn dafa doon jàng benn bis waqafu alxuraanam mooy lam daan jàng ci alxuraan nee na ba mu yàgg suñ borom muril ko alastu bi rabbikum mu jàkkaarloo ak lépp lu yàlla bind nee na jàkkaarloo ak yonent yi jàkkaarloo ak xutbu yi jàkkaarloo ak nit yàlla yi comme laaj sama borom ni ko kii kan la mu ne ko diw la kii kan la mu ne ko diw la kii kan la mu ne ko diw la waaye nee na ba ma koy laaj ba egsi a Ahmadou Bamba nee na a Ahmadou Bamba ma ba ñu génnee dañoo fatt yoon yëpp ba kenn am foo jaar ma laaj sama borom ne kii mooy kan mu ne ma kii mooy a Ahmadou Bamba nee na sëriñ bi wakkal ma sama bopp ma ñëw nee na ma ñëw ba egsi ci moom mu ne ma dafa am lu ma bëgg a jottali sama borom ndax yow naar bii da ma ko mën a jottalil yàlla mu ne ko waa ba mu mayee tawféex dinaa ko man mu ne ko neel sama borom lim sédd gaa yu baax na ma ko defal may ay yoon yi yoon yi yoon yoon ndax sama njaboot dañoo bari te damaa bëgg seen xol sedd ñoom ñëpp nee na ba ma waxee loolu ba pare suñ borom daal bu fekkoon day day koy tibb dana nëq sànni Serigne tubaa ne waa nëq sànni Serigne tubaa ne waa sànni Serigne Touba mu ñetti yoon mu bëgg nëqaat Serigne Touba ne ko neel sama borom li ma jox doy na kon nag suñ borom moo ko jox ba mu kon kooku li mu bëggoon lépp suñu borom defal na ko ko barab bii kon lu ne xew na fi waaye ñun nag yàlla dimbale nañu ñun njabootu sëñ tubaa li ñuy wax tey ci sëriñ tubaa dana yomb a gëm ndax mag ñooñu fa ñëwoon doon xiif doon mar doon rafle doon def lépp ñun biñ fi ñëwee tey liñ fi aña moo dàq la ñuy aña ci suñu kër lañ fa moo ko dàq oto yi ñu fa war amuñ ko kon day mel ni Serigne Touba yàlla fay na ko pay googu mu ko fay nag moom lañ ñëw fii di ko jël si ci gànnaar ànd ak soxna maam Issa Mbacké ànd ak bokki taalibe yi te ñun waxi Serigne Touba ku gëm Serigne Touba doo ko nattable ku gëmul Serigne Touba ba nattable ko tam soo ko nattable da nga cay yàqoo ku weddi waaye yàlla yaa cay wa yàqoo Serigne Touba nag li mu wax kenn mënu koo dindi nee na sarsaare gii ba baa addinay tukki nag laa wax waxuma ñëw ci première édition bi ñëwatoo wala nga ñëw ci treizième bi ñëwatoo wala nga ñëw yëpp wala déwén ngay ñëw ñëw woon yi weesu Serigne Touba nee na saa woo tegee sa tànk Sarsara keroog ba nga tegee sa tànk Sarsara ak la jiitu woon ci sa dund suñ borom effacé na ko nga mel ni liir buy soog juddu loo defaat ginnaaw bi nag yaa ko defaat ñu bind laal la ko soo ñëwaatee Sarsara amaat ko lan moo tax nag répété yoon yi baax dama koy ñëwaat mooy ñun ñi bañ fi jógee daaw kenn ci ñun ko mën a waat ni jëfu bàkkaar amut kon bañ ñëwee daaw setoon nañ waaye bi ñuy ñëwaat ren dañoo taxaat dañoo ñëw ngir set moo tax kon ni ngay sangoo suba di ni sangoo ngoon dina sangoo tiwis noonu ngay ñëwee sarsaare di ñëw di ñëw di ñëwaat moo tax léegi li nit ñi laaj la ku dem benn yoon du doy ma ne ku dem benn yoon te doo def bàkkaar doy na bul ñëwati waaye koo xam ne boo ñëwee benn yoon boo delloo da nga defaat bàkkaar da nga ñëw moo taxoon ak njaboot gi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel kon nag loolu ku ci yàlla boole war ngaa sant yàlla bu kon soxna maam isa mi nga xam ne ci darajaam ak mbaaxam ak bokkam yu baax yi ñu àndal ñooñu omat ba indi ci barab bi ñu am saasu dajale fi njabootu Serigne Touba yëpp war nañoo sant suñu borom bu baax a baax xam ne ñun yàlla nangu nañu suñu ziar te tàbbal nañu ci faaraxu daara ni aw saara kon nag ñun ñëpp ñu maase ñaanal soxna si ak bokkam baax yi mu àndal yàlla nañ fi yàgg lool te wér te tey tam seen jëf ju ji ñu def nga xam ne def nañ ko joxe juróom ñeenti téeméeri junni ak juróom fukk ci jumaa ji ci xaalisu ugu ya loolu kat sëriñ bi mm-hmm. dan koo war a wax lépp lu ñu def ci lu baax dañ ko war a biral ba ñëpp dégg ko ndax fii ñëw Sarsara su fekkoon ne télévision ñëw fi wan nit ñi image yi ñi fi xam ne Sarsara lii fi nekk te kon duñ fi ñëw kon loolu moo tax ñun li ñu def ñu def ko waaye ku nekk xam na ne soxna si mos a def dara fenn di ko wax lépp lu def Sëñ Tuubaa tax mu def ko te ñu booloo mi àndal xam nañ loolu waaye nag Sëñ Seex Mbàkke dane nit ki sooy ànd ak moom te bëgg ànd bi yàgg da koy laaj loom man defal ko fa mu xam ku bëggul ku ku ku denc rondal nag du bëgg ku yorlu maa ngi jégul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh taalibe yi ñoo ngi leen di xamal ne bis bii dañ koy def at mu jot muy ñu ciy fàttaliku ngir ñu ciy fàttaliku jëmm ju mag jihaatkat bu mag tey sëriñ bu siiw di Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasool mi nga xam ne aw turam siiw na ci penku siiw na ci soow ci ragal yàlla ak dundal suuna ak topp jeexeeti mu ñu baax ni sëriñ Touba nee na man mi damay jihaat ci xam-xam di jaamu yàlla te yàlla seere na ko Sëriñ Tuubaa doo dellu waxaat ni waaye du mooy kóllërante naag yonent bi sallallahu alayhi wa ci di ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa dellu waxaat ni moo gën a yey ci man ma di ko liggéeyal ci woy ak ci wesar ndax mooy yonent bi yërmaande bi kookoy Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar sunu royukaay kon ñun en tant que ay murit war nañoo takk suñu ndigg wokk sunuy loxo fas yéene topp ay jeexitam di ko xeeñtu jéego par jéego bañ a tàyyi bañ a yokkat tey jëfe ay ndigalam di moytu ay tereem te ñu jéem a sellal suñuy jëf ngir yàlla jéem a mel melukaan bi nga xam ne ab murit saadix na lay mel niki dëggu bennoo dëggu ci pas-pas amub dogu rafetu doxalin te bëggante yërëmante dolli ci di dimbalante ni ko yàlla waxee ci alxuraan nañ dimbalante ci ak ragal yàlla te bañ a dimbalante ci noonoo ndax noonoo jàngoro la ju të faj ci kamu kon ñi nga xam ne dañoo sóobu yoonu yàlla ñoom ay àndandoo lañu ni ki ay bokk di matale coloré matale seenu bokk loolu laa bëggoon a tënk ci teewaayu sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ni dafa mankan lool te yaatu dënn ginnaaw bu ma santee nag Cheikh Sidi Moxtaar bi nga xam ne mooy njiital yoonu murit di sant bu baax directeur musée national bi muy monsieur Kane di sant Serigne Saba Fall mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Massamba maa ngi koy sant bu baax di sant Serigne ma jaw jaw mi jiite fédération Cheikhul Khadim maa ngi koy sant bu baax di sant soxna Dior Fall mi nga xam ni moo jiite daayira Maam Jaare di dellu di santaat bu baax Serigne Sidi Mbacke di sant délégation yi fi teew yëpp ku mel ni Bassirou Amar jógee Dakar di sant soxna Bintu Fall bu baax di ko gërëm di sant soxna maam Marème Mbacke bu baax a baax di sant njabootu Serigne Touba gi ma àndal jotal nu yóbbu délégation bi ma àndal leen sant bu baax a baax bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen bàyyiwuma mag bàyyiwuma ndaw sii di maa ngi lay dellu di santaat bu baax Mbacke di la ñaanal ci sag bi nga ma sagal ndax heure bii daaw laa taxawoon fii. ni la bis bi nañ ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall nga nangul ma ko ndax bunt yu ubbeeku waaye Baye Fall yëpp maase nañ ma ne ma ren buntu buñ fëgg rek ubbeeku na ñun ñuy jóge tubaax xam nañ ko ndax liñ am ren ak li liñ indi mu mosuñu ko am te loolu tuddee giñ ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko waral loolu rek laa bëggoon Mbàkke yàlla na yàgg te sax ñu yàgg fee teew yàlla mosal ñu ci seytaane ak i pexeem mépp mbir mu ñuy sumb yàlla musal ñu seytaan ak pexeem defal ñu li gën ci ñun àdduna ak àllaaxira musal ñu ci bokkaale ak mbewte di sant war a xadd karam naa ahlu café daayira ahlu café sar saara ndax taxawaay bi rafet na teeru nañ dalal nañu seen alal ak seen doole dencalu ñu dara ngir jëmmi sëriñ Sidi Mbacke ak jëmmi sëriñ Touba rek a tax ñu di ko def mbokki naar gis ngeen ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ash misri muy sërif bu mag boobu nga xam ne ma nga fa macha allah di borom xam-xam di ku tedd waaye ku Sëriñ tubaa ñor gis ngeen noonu naari gànnaar yi ci biir liggéey bi bokki taalibe yi mënul leen ci ndax ñoom itam taalibe yi Sëriñ tubaa lañ kon bokk yi sarsaara ngi noonu baraba ngi noonu boo xam ne barab bu tedd la ba ngi xoon mu xam ne sëriñ bi nee na fa la ko yàlla fayee ab liggéeyam ajran kabiran wa thawaban wa jaza wal waxdu lii fi ramadaani najasa